لأنه للحدى والنور جرار asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal nu jàmmi àddina ak àllaaxira di ñaanal bu baax seex muhammadul muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér ba lim yéene liggéey lislaam mu àggale ko fu kawe njortam noo ngi ñaanal boolem ki kuy dégg sunu kàddu di sàkku ci moom mu ñaanal nu suñu borom defal nu eh, tawfiq zahiran wa batinan defal nu ak njub defal nu ak njiggal defal nu sutura defal nu mucc àddina ak àllaaxira defal nu jàmmi àddina ak àllaaxira def nu ay digg digg ay digg digg taalibe Sëriñ Tuubaa ay murid saadiq di santaat seen borom tabaraka wa taala eh, bi mu nu may ñu fas yéene dikkaat insha allahu taala fii ci ëttub M-Media Group Nourou Darayni fas yéene continuer sunu jataay bii nga xam ne mooy zaadu nisaa'il muslimaati li nasihatil mu'minina wal mu'minaati doon jataay boo xam ne jataayub eh, fàttalente la waaye jataayub laayenti biir la laayante biir yi nag mi ngi gën a màcce ak fàttale yi ci sunu bokki soxna yi waaye bokki góor yàlla yi ak eh, ku suñ boom namm sag jariñu rek incha allah mën nga cee dugg kon jataay bii nga xam ne moo paase noo ngi doon jàngat lenn ci wala noo ngi doon wax lenn ci ay jikko yoo xam ne eh, yu tedd la yu lislaam gërëm yoo xam ne moom lañu taamu ci jigéen ak jikko yoo xam ne yu safaanu la yu nu gërëmut la yoo xam ne moom lañu sib ci jigéen wala sax nga ne moom lañu sib ci doomu aadama bi rawat na jullit bi rawat na jullit bu jigéen bi doon jikko yoo xam ne benn bu ci nekk rek mën naa alak boroomam bu ci nekkee te tuubu ko waaye bu ci bu ci nekk rek bu ci nekk ci nekkul rek bu ci nekk ab safaanam mën naa bokk ci jigéen ñi nga xam ne ñoom lañu taamu mooy euh, jigéen ñu baax na bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci taamu ci jigéen mooy euh, tànk bu gàtt jigéen warte gudd tànk sañ na génn nag doxi ay soxlaam waaye nag buy dox na ko farata yëkkati na ko fulla yëkkati wala nga nag fayda yëkkati bu la muy doxi farata jamuy doxi jeexee wala fayda jamuy doxi mu jeexe mu delluwaat këram toog loolu la karim wax sunu jataay bi paase bi nu indee aay boobu bi alquran wax yaa ya nisa annabi lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taqda'na bilxawli fayatmaca allasi fi qalbihi maradun wa qulna xawlan macrufa ay bi ci tegee mooy waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati al ula wa aqimna alsalata wa atina alzakata wa atina allaha wa rasuluhu innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rissa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera nga gis ne kon jigéen leen ko digal mooy mu toog ci këram lu dul dafa am lu lu ko lu ko war a génne loo xam ne farata la wala mu nekk fayda وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن جوجو ak ولا تبرجن علامات تبرج xañ na des na ci ñëw benn bis ndax am na ci waroom xam-xam yi ñu ci yaatal lool waaye jigéen sañ naa génn doxi loo xam ne faratal ci moom sañ naa génn doxi loo xam ne eh, faydale ci moom waaye nag bu génn na melokaanu melokaan wi nga xam ne noonu la ko lislaam digal mu melokaan su mën mënta génn nag day day daldi xaram ci moom mu génn jigéen sañ naa génn doxi farataam wala mu doxi faydaam waaye nag ci sart bi ñu koy tegal na mel melokaan wi nga xam ne lislaam dagal na ci moom su ko mënul rek moom mu génn jigéen su bëggee génn doxi te mënta sàmmoonteeg sol col gu gàtt mënta sàmmoonteeg du sol lu gàtt mënta sàmmoonteeg du sol gudd mënta teg du sol lu du sol lu yaatu mënta teg du sol lu fatt su boobaa day xaram ci moom mu génn su fekkee dafa bëgg génn te euh, génn génn woo xam ne awram yëpp day nekk ci biti wala la ëpp ci awram nekk ci biti jigéen joojee nag dañ ko wax na ko waxar na fi buyuti kunna waaye nag wala tabarraj na tabarrujal jahlitil ula tabarruj mën nañ koo jàppe ci ne jigéen ji nga xam ne day génn te aajo taxu koo génn waaye dafa génn rek ngir ngir ngir wane boppam walla mu génn rek ngir euh, ku ko xool euh, rawat na nga sol colin woo xam ne colin wu lislaam dàq la nga génn nag moom ngir bëgg ko la xool te mu leer na soo ko génnan kenn du la xool doo ko sol génn kon nga génn di dox doxiin woo xam ne wu lislaam dàq la ni nga xam ne noonu la ko alquran waxee ko kii jigéen moom dañ koy wax ne ko la ci moom mooy mu këram bañ génn jigéen buy génn na fexey sàmmonte ak lislaam ak ni ko lislaam ni ko lislaam ni ko lislaam digle lii may wax nag ni ma ci jublu mooy jigéen ñu baax ñi euh, saalihaat yi euh, bu nuy génn naan sàmmoonte ni leen lislaam digal euh, dunu sol lu gàtt wax nañ ko ba tàyyi wax nañ ko ci jataay yu bari waaye nag wax ko duñ ko tay di wax Euh, du sol lu gàtt du sol lu xat du sol lu yaraax bu bàyyi aw yaram ci giti moo xam ab dënnam la wala ginnaawam melokaan yooyu wu ci jigéen na rek ginnaale rek bañ a génn ga day gën génn ga jigéen su nare génn tam génne melokaan yooyu bañ génn ga day gën génn ga léeg-léeg sax na mu àgg ci xaraam lool sax ndax melakaan wu wu ji wu alquran wax ne nii la jigéeni jullit sañ mel jigéen bu ko melokaane sañ a génn waaye bu ko melokaanu sañ te génn loolu nag bokk na ca euh, li nga xam ne noonu la jigéen ñi di génne léegi nga xam ne ñi ëpp ñu ëpp ci ñoom dañuy génn génn tabarruj nga xam ne la gën ci moom mooy euh, waxarna fi buyutikunna mooy ñu toog kër bañ a génn wala lay tax mu génn mooy mu am aaju joo xam ne aaju ju la joo xam ne mën na caa loru mën na ca loru te bu génnee nag ab tànkam mu génne nag génne ko du sori waaye su melut melokaan woowu rek dañ koy tere mu génn kon alquran wax na waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahrati ula bu ko waxee nag du caagin dañuy wax ne kon jigéen moom toujours rek daa war a sax ci këram du génn donte am na aajo donte am na farata ju mu war a doxi te mën a sàmmonte ak nekku ko lislaam digle du génn déedéet su amee farata ju muy doxe wala mu am aajo ju ñor ju muy doxe te mën a sàmmonte ak ni ko lislaam digle mu génn su boobaa seen na génn dara nekku ci léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ne day génn melokaan wi nga xam ne lislaam gërëmu ko nekk ci ay caaxaan yoo xam ne lislaam gërëmu ko nekk ca ba waxtu julli jot du xam sax ne waxtu julli jot na wala mu nekk ci melokaan woo xam ne lislaam gërëmu ko moo xam daf dafa am lu muy yaxantu wala lu muy lijjanti donte dem na sax ba am ba oomal lool te moom du xam ne àqi lislaam war naa génn ci àllam ji fekkee na alal alal la joo xam ne alal ju lew la li ñuy tuddee asaka ak yu ko nuru am na jigéen ñi ma xam ne lu mu lu nu bari la bari la bari la jàpp nañ ne génn asaka moom bokku seeni mbir waaye déedéet jigéen suy génn war naa sàmmoon tekk ni ko la islaam digle te say bu génnee bu waxtu julli jotee bu fekkee ne toll na ci jamono yu mën a julli lépp lu mu jàppoon mu bàyyi ko julli nag bu nu xoolee ci jamono ji ñu toll rawat na xew yi nii nga xam ne noonu la mel ak ni ko jigéen ñi soppe jenn jigéen eh, ju ci nekk ci aw xewam mel na ko mel nam bëgg a dem ba waxtu julli jot mu bàyyi lépp dem waaj julli jigéen lu néew a néew la néew néew ci ñoom la lu néew a ci ñoom la te ba alquran waxee waxarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahlitil ula lam ci teg mooy wa aqim na salaa aqim na salaata wa atina zakata wa atina wa rasulahu Euh, jigéen war nay fonk waxtu julleem war nay man fépp mu nekk moo xam xew la wala lu mu mën nekk moo xam yoon la wala lu mu ci mën nekk rek ba waxtu julli jot te mu toll ci jamono bu mën a jullee te amul lenn lenn lenn ngànt lu ko tee julli ca waxtu woo mu daal di bàyyi lépp dem julli dañuy faral di wax ne jigéen war naa mën a àgg ci am diine am diine goo xamante ni bii war naa mën a teg ci nem ca kaw taal ba muy tàng mu dem ba def ak diwam ba diw ga ba nga xam ne rusuma ci des mu digg ñu nodd ca jullekaay ba mu teggi cin la ca suuf dem julli ba pare dikkaat tegaat cin la continuer loolu moom day doon ñam boo xam ne ku ci lekk rek day barkeel jaamu yàlla daf lay yomb lool sax waaye mooy yàlla daf lay jafe lool waaye jigéen boo xamee ne bu nekkee ci mbiram di liggéey moo xam wàññi la wala lu man nekk faaleetu waxtu julli julli du jot moom def ko moo xam moo xam togg na ba pare wala toggut kookee ñam boobu muy togg eh, barke def ci néew lool eh, ba eh, xañ na sax daanaka sax mën na du ci am ndax lépp loo xam da nga caa nekk rek ba waxtu julli jot su booba lekk loolu day xaraam nga continuer ci ak donte jàng alquran la nga nekk ca ba waxtu julli jot rek da caa war a kun da ah, ko war a dog nga dem julli ji boo boo dikkee door a àggale ndax ñenn jigéen ñi ñenn ci jigéen ñi am na ci ñu farlu lool nag jàmbare lool bëgg seen diine fonk ko lool lool lool ñenn ci jigéen ñi la di wax am na su ñoo xam ne jàpp na ne jaamu yàlla moom lu nu war niiwal la dañ ko def ci ak seen ak coobarewu rek bu nu amee ah, waxtu waxtu yaatu def ko buñ ko mu bàyyi ko bu nekk ci seen liggéey nu liggéey ba man demee bu waxtu julli jotee duñ ko faale nan dem rek ba liggéey ba àgg ñu xool ñu door a xool lan mën a julli eh, wala lan bëgg julli ñu daal koy julli te nag uh, wërta noonu soxna Jaaratullah mii nga xam ne Euh, moo war a nekk royukaayu jëpp jigéen ju baax joo xam ne xam nga ko xam histoire am digg am ak gis na ni nga xam noonu la fonke woon jaamu yàlla ba li gën a siiw ci li ñuy wax dañuy wax ne fanweeri at ak ñett ci la dund nga gis liggéey bii nga xam ne liggéey na ko ci lislaam nga xam ne ba keroog suñu borom wa taala di lem dindem bi duutul fay mu dund fanweeri at ak ñett am na nag lenn ci soxna yoo xam ne loole soxna jaratullah dundoon mooy fanweer yoon ak ñett dañ ko fulandi ñaari yoon mooy dund nañ juróom benn fukki at ak juróom benn te ñoom nag commencé gun seen wàllu jaam yàlla nee naan dañuy xaar ba doon mag nga gis ne lu doy war la dund ba am juróom benn fukki at ak lu topp te waxu waxu waxi jaam yàlla bu la waxee jaam yàlla ngay da xaar ba ci kanam fonkoo julli fonkoo koor fonkoo asaka fonkoo saraxe fonkoo lenn lenn lenn lenn ci def lu baax jàpp ne sag dund moom da ngay dund rek di continuer da ngay dund rek di continuer ba màggat ba mënatoo dem ba say cër bañ ko door a jublu ci jaamu yàlla te jaamu yàlla moom baax na ci mag baax na ci ndaw waaye nag ci ndaw la gën a la gën a la gën ndaw li nga xam ne dafa toll ci waxtu ndawam nga xam ne ay cëram yëpp nungu na nga xam ne su ko neexan dem ca fomo su ko neexan dem ci loo ko neex waaye nag mu bàyyi lépp jublu boroomam googee jaam yàlla la suñu boroom gën a nungu jaam yàlla ak mag mi nga xam ne dafa fo maga ndawam yëpp ba mu jeex dem ba àgg ci mage nag nga xam ne la ay cëram nungoon nungootu ko mu door wëlbati ko jëm ci jaam yàlla naam suñu boom dana ko dana bëgg waaye nag suñu boom gën a bëgg mooy ba nga ca tollee digg digg digg nga defoon ko kon jigéen ñi man xam ne jaamu yàlla jigéen saay bu nekkee mu kàllaf bu tollee ci at yi nga xam ne ci la ne xamee ak kàllafeem moo xam moo xam moo xam ci euh, euh, màndar gi koy xam yëpp na xam ne la suñu borom tabaaraka wa taala farataaloon ci waajuram wu jigéen noonu la ko farataal ci ci moom moomee la nga xam ne moom la suñu borom moom la ko dig ci euh, ak mooy ci waajuram wu jigéen noonu la ko dig moom ñoom ndaw tam kenn ku ci nekk war na ci bàyyi xel di ci euh, di ko fàttali jigéen ñi rawat na ñi nga xam ne dañuy door a dugg ci ati kàllafe te xam ne awwalu ma yajibu alal mukallafi tasxiixu imaanihi li jëkk a war ci mukallaf mooy mu xam li nga xam ne ak ngëmum dana ci wéree loolu nag ka koy xamal mooy waajuram moo koy xamal wala mu wut koo xam ne moo ko mën a xamal mu yóbbu ko boole ko am moom waaye nag doo ko bàyyi rek ci ak boy lu ko neex rek mu def du xam la ko war du xam la ko diine da xam ne jullit bi daal saa bu nekkee ba demee ba doon mu mukallaf la jëkk-jëkk war ci moom mu xam ko du lenn lenn lenn lenn lenn lenn loo koy xamal lu dul la jéem koo xamal la nga xam ne moo yëwénal ngëmam tolloo dara jiitu ci alquran karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngale mag ñu baax ñi kan ci jiital ci ñoom mooy Seexul Xadim kon loolu itam lu jar di bàyyi xel la ndax jigéen bu góor góorgóorloo bu fexee ba sàmmoonte ak li ko sun wa taala digal néewaana néewaana néewaana mbaax ga suñ boroom tudd ci góor te tudd ca jigéen ca wet ga maqaama yi nga xam ne góor mën na caa àgg te jigéen mën na caa àgg xañ na am na waaye nag waaye nag taxu ko bari lool bu ñu dellu ci alquran karim inna al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitiina والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافزين فروجهم والحافزات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما nga gis ne foofu fu alxuraan tudd góor na fa jigéen mu ne innal muslimina góor la ci jublu wal muslimaati jigéen la ci jublu wal muminina góor ci jublu wal jigéen la ci jublu wal jigéen la ci jublu góor la ci jublu wal xaanitaati jigéen la ci jublu was saadixiina jigéen la ci góor la ci jublu was jigéen la ci jublu nga gis ne la ko toppee balaaya ba jeex nga gis ne kon jigéen bu farlu digg digg digg digg digg niiwaa na maqaama wala daraja ju góor mën a àgg ci ak jaamu yàlla te jigéen mënu fa àgg ak donte am na nga gis ne kon mbaax moom suñ borom subhanahu wa taala moo ko moom di ko jox ku ko neex dana ko jox góor dana ko jox jigéen dana ko jox mag dana ko jox ndaw mi nga aji rek ci coobare suñ borom subhanahu wa taala ak kem nit ki ak farloom ak ak sababloom Euh, di ñaan suñu borom tabaraka wa taala euh, mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñooy dégg suñu kàddu ak góor ñi li euh, suñu borom di tàgg ci jigéen ju baax lépp mu nekk ci ñoom li suñu borom di ŋàññi ci jigéen mu sori leen li suñu di tàgg ci góor ñu baax lépp mu nekk ci ñoom di ŋàññi ci ñoom mu sori nu di leen jégg lu baax di ñaan suñu borom defal noo tawfiix taysir zahiran lu baat na suñu borom yërëm lu jéggal lu gërëm nu defal nu yërmande ngërmande euh, defal nu ak njub euh, doon fàttale rek xañ na donte li ñuy wax sax bu nekkut ci ñun tam noo ngi ñaan mboolem ku ko digg rek mu nekk ci ñun mu nekk ci yow te suñu boom def ko ci ñun euh, suñu boom defal nu sutura defal nu tawféex zahiran wa batinan ci ba Seexuna al Xadim kon dañuy taxalu foofu insha Allah ba beneen jataay di ñaan suñu boom defal nu jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira ci barke alquran karim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu سلسلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين لعوا والفضل عند رسول الله قراروا sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey